au générique au générique Badji de son vrai nom di sama euh, frère mu nekk ci générique bu doy waar ngeen di gis mooy lan jamono ku ko fekkee war caa def lu baax euh, vous revient votre émission quand même bi nga xamante ni euh, c'est tous les samedis à partir de 22h. donc xam ngeen ni samedi bu le passé donc euh, daf ñu ko woon parce que ñu ngi ne woon ci appel bi ñu ngi woon ci euh, direct yi ak fi euh, nga xamante ne moom mooy Dakar Net donc loolu moo tax gisoo lañu également ci émission bi nga xamante ni moom mooy jamono alors émission jamono nag comme vous le savez bien dañuy faral di traiter ay thèmes de société di waxtaan ak suñu mag yi di waxtaan ak suñuy rakk yi di waxtaanaat également li nga xamante ni mooy actualité ci réew mi xam ngeen ni ñu ngi ci mois de mars euh, le mois de mars les femmes sont l'honneur ba weer bi yëpp di jeex ñoom ñoo ko moom donc prétexte bi nag mooy indi sax waxtaan bi li tax ndax jigéen xam na boppam euh, li tax ma laaj question boobu mooy également lan moo tax ñuy wax li nga xamante ni moom mooy business euh, bu business beauté maanaam xale yi nga xam ne dañuy rafet dañuy rafet am na ñoom sax duñuy rafet même fekkee taar si xol la nekk comme on le dit mais dañuy utiliser seen seen corps utiliser seeni seeni seen i seen i seen profil ngir mën ci am dara pour mën ci faj seen i soxla ci euh, am na loo xam ne lu si bëri nag du légal quand même il faut le dire loolu mooy thème bi euh, business beauté euh, masculin domine ndax fii jaw nee na moo fi doon toog sama gos toujours toujours moo doon njëkkan yow jaw nekk fi tey euh, dafa absenté mhm. euh, tey euh, sama frère moo fi toog ñu koy wax Njàmbe mhm. Njàmbe Ndakaaru borom Sénégal mhm. borom borom click ado borom click ado ah borom Rouba ah, Time borom Rouba Time borom Shopping Dance Shopping ah, a ngi si émission jamono ah yéen ko affaire doo doo yëkkati sa kàddu ñu dégg la waaw ah. émission jamono xam tey nag nga am invité bu doy waar xam nga mm. muy ñaambe xam nga man dama nekk nit koo xamante ni daanaka dama yaakaar ni maam bu newoon day wékku rek naa mm. yàqul ne boobu benn fi xaw na ma sonal nag mais tey xamul lu mu wékku rek nañ ko comprender noonu ah tey ah, tey Ouzin tey dina mm-hmm. tey tabaa fakka la émission bi dina mel ne njambaanu passi xanaa saf njambaanu passi xanaa loolu saf na mandil ah saf na émission bi dina mel supp banaana xanaa nooy suppu banaana supp banaana day nooy day ritax non tabaa fakka la ma non tey tey dina yëngu dama ah. bëgg képp fépp waay tool da nga jàpp sa coppintaas Mm-hmm. te mu ngi yëngal àdduna. Mm-hmm. non lu doy waar Ouzin. Mm-hmm. mu fexe dawal. ñu waxtaane ko. <laughs> mu fexe dawal ñu waxtaane ko alors kooku sama sama frère la Ndiame ah donc moom fi bokk si kër gi la bokk. à sama droite dix ah. euh, la grande mannequin xale bi nga xamante ni podium bu ne daanaka macha allah euh, dox na ci. Ah, buy reetaan nii nii nii nii xolam buy dox si podium nag doo xàmmee de. Ah. eh eh benn journal woon photo doo xàmmee. mooy sol coquette yi. mooy sol lépp. d'accord. Ousseyn nuyu naa la mhm. amee tamit nuyu naa la di nuyu mhm. tamit suñu mbokku internet yi di ñu seetaan yu Dakar net di mhm. leen wax émission jamono nii lay demee chaque week-end ah, tey ñu fas yéene waxtaane thème bu important donc mm, thème bu important mooy euh, business beauté <laughs> xale yi nga xamante ni pare nga si nuyoo bi doo nuyu sa sa synapose bu mag bi. waaw moom dinaa dama koy beral nuyoo. Mm-hmm. à part fin bi. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> d' accord alors euh, euh, le, le décor est campé émission baa ngi noonu. dañ koy ubbee wala sax damay njëkkee si nga xamante ni moom mooy njàmbe suñu frère ana njàmbe. waaw naka nga gis nga xale yu jigéen ñi lu ñuy dundee léegi. ndax si mois de mars bi dafay am solo ñuy waxtaanee mbiru jigéen. jigéenu démb ak jigéenu tey am na différence d' accord modernisation bi mi ngi fi mais est ce que jigéen war na di utiliser taaram. pour di si business. bon xam nga xam nga xam nga tey. Mm-hmm. Mm-hmm. business bëri. Mm-hmm. dafa am solo. ci réew dafa solo ci réew. déedéet mais njaam am solo. non parce que xam nga àdduna. lépp loo gis da ciy baax mu am jënd ak njaay. te jënd ak njaay dafa bokk ci li nga xamante ni day doxal réew. donc nit ki mën nga utiliser lépp maam pour jaay ko donc business bëri bu ma ko déggee man ànd naa ci. tabax fa kàlla macha ànd naa ci parce que ñëpp xam nañu man. dama faible. Njambe nit ñëpp xam nañu ah. nit yàlla bëggul kuy fen. waaw te man dama naturel. Mm-hmm. ni ma gisee nii yàlla xam na ni ans dama ko bëgg sama xol parce que aussi xam nga ans mm-hmm. jigéen bu am ans loolu lu ne la Ousseyn man jaay jël naa suñu kayitu location kër mm-hmm. maam jox ko xale bu jigéen bi ndax fant. fant fant bi fan la egg ba loolu da ko war a wax. non eh, si eh. joxuma këyitu kër gi mais. location bi xamuñu dañoo luwe. xale bi def ma def fant mënuma koo muñ sama xol bi seet ma jox ko xaalisu location morom fay essence ba si li ma génnee ndax man damaa feebu. Ouzin ñoo mel ci fan dafa doy waar. d' accord kon yow tu valides da ngay jigéen buy business ci taaram. tabax fa Casamance loolu dama ci ànd parce que ñëpp xam nañ tey boo solee baa hmm. pain bi deux cent cinquante ne ñàpp sa digg ba hmm. nga a dox loolu da koy jaay du ko téye muy yàqu mais wala ko téye ba am borom kër am ko téye ba kan kan ngay am borom xamoo ko àdduna boo ci nekkee nay neex hmm. soo dee yàgg yàlla la mënu laa dundee d' accord mais mais mais nag di booy dund tamit war nga war nga war nga sóoraale ëllëg war nga sóoraale euh, say doom war nga sóoraale histoire. lu ñu mën a nettali si yow. par exemple boo boo bàyyi say cër mu expo exposé wu ci internet bi. Mm-hmm. après nga màgg wala sax nga dem ba nekk sa sëy après ñu koy génnewaat tamit. xam nga xam nga xam nga tey fii lu ne xew na fi. Mm. xam nga photo ma sa xew na fi. Mm. photo ma xew na fi. donc ay ay maam guddi taan xew na fi jamonoy Védène ba xew na fi. donc fii lu ne xew na fi donc Sénégal dëkk wax la koy wax après mu jàll essentiel moom ci fi nga ne yëngu ko ba mu yëngu man xale dama ànd ñu ci business bu tey parce que tamit taa dafa doy waar TikTok baa ngi tëj réew mi ba damay toog di sélectionné <laughs> wër na yàlla donc di tey ay vidéo da baax nga xale bu def baax boo xamante ni non subhanallah Ouzin yan nañ yàlla may muñ mais tamit man nit ñi nañ ko rànk rek man damaa faible feebar la te loolu moo nekk ci man <laughs> damaa faible loolu moo nekk ci man loolu de xamul lu ci nit mën vraiment bon dis la dis yow euh, déjà bala ma lay wax li sawaay di wax yow déjà noo gisee thème bi quoi xale yi jigéen jël seen taar yi di ko exposer pour bugg pour di ko business ak yooyu noonu quoi déjà Ousin thème bi nga te teg mm. tey mm. thème bu important la bu nekk tamit suñu société mm. comme ni mu ko waxee man déjà ànduma si jigéen laa ànduma si parce que taar mooy xam moo nekk loo xam ne mën na la sànq mhm. soo ko toppee mhm. nekk jigéen rek ah yor sa taar rafet nga ne damay def naka sudul noonu déedéet mhm. jigéen yëre bu weex la tache bu si dem dootul deñ moo góor bokkul góor t bu ñuul la buñ si di wax yu bëri fii ba suba du feeñ donc taar ah pour man jigéen warul jaay boppam warul jaay taaram ndax jigéen tamit xam na boppam waaw xam nga xam nga tey boo taxawee ni jigéen hmm. euh, tiset bu bu weex la tamit nga toog paccal sa paccal amul solo hmm. tey boo ñëwoon maam tey hmm. sol maam tey sa sa sa sa sa maanaam li nga xamante ne muur say cër ba fii xam nga jigéen lépp awra la léppam awra la. Eh, eh, mais njàmbe dafa jàng ah non nañu waxoon dëgg non nañu waxoon dëgg léppam awra la njàmbe dafa jàng. mais boo defee sa greffage. waaw pàccal. waaw tey limon. waaw loolu taar amatu fa. yow li nga def nii maam tey moom gaa yi koy def c'est la même chose. mais d'accord mais xam nga kii nag. mais li mu sol nii c'est assez non non non non je suis pas d'accord parce que parce que Ouzin li mu wax ak yow nga nga prendre soin de toi-même. Mm, mm. ah nga sañse xëy lu neex ça n'a rien à voir ak moom jikko bi mu wax est-ce que tey chantier war na see ci chantier la bokk nañ wax ne dëgg parce que business beauty lañ wax kii li mu def nii. tabax fa carrément sax ma dama ko bëgg. kenn moom. gis li mu defee simise bu baax yow da nga jàpp ne biis dafa dafa pàccal daal. non gis ma ngay xëccaat yaa ngi tax muy xëccaat simise. non non parce que bu ko da nga xëccaat parce que man bu ñëwee jàkk laa xam ne. gis mi man je la cherche. moom moom laay wër barkaal doo ko trouvé tey. moom laay wër parce xam nga xam nga xam nga xam nga tey euh, dañ naan œil sous œil solide. Mm-hmm. œil mooy jigéen bu dëgër bët ci français femme œil <laughs> xam nga Ousseyn dama la koy ñaan. waaw waaw ñu xam nga nañu maam. xam nga nañu waxtaan ma man dama ni dama ni ku. waaw nga mel non nga mel. je suis naturel non la mel ah. donc yéen ñii c'est man dama il est comme ça de nature ah. man dama faible waaw quand même. en attendant muy nooyi. Euh, Diz li ma bëggoon wax mooy en fait pour ñu gën a préciser waxtaan parce que xam naa suñu mbokk internet yi dinañu xaw a dal tey ah mais mm-hmm. garaaw nañ ko gérer mm-hmm. mais pour être un plus responsable quand même mm-hmm. euh, maanaam jigéen bi nga xamante ne surtout jamono bi jël say vidéo tout le temps di balancer TikTok bi pour espérer am benn millionaire bu la woo wala benn borom xaalis wala pour mën am si iPhone yi dafa ah, dafa dafa exister quoi est-ce que yow euh, déjà loolu noo ko gisee te jigéen dañ koy def quoi sa morom jigéen ñoo koy def Ouzin xam nga nekk si TikTok dugal say vidéo amaan na nga ko def pour plaisir pour kafoore mais ça n'a rien à voir ak dugal pour am nit yu baax am xaalis. am boo dugalee sa photo TikTok di def yenn yëre yu sexy nii da ngay attiré genre njàmbe yi tamit. vidéo yow yow xaar ko may xaar mu daane. ku ne TikTok bi moo raw porno gis nga euh, internet bi dañuy gis nit ñëpp prédateurs yi ñu ngi si biti comme genre ñambi yi nga xamante nee na fant moo koy sonal ak ay genre paccali mhm. donc dañ leen di jéem a éviter mhm. waaw ndax jigéen jigéen la ñu tamit terewul tamit ñu bañ a xam suñu bopp mhm. xam lu ñu war xam ne tamit demain on est appelé à devenir maman ak tamit yor foyer donc lépp lu ñuy def rek dañ ko war a xam rafet mhm. ah mun nañ ne taar nekkul ci mhm. physique bi rek mhm. c'est juste que xol mooy rafet xol mooy jikko donc euh, ku jël taaram pasar pasaree ko lu ah, luñ naan mais la moo tax ñu koy pasar pasaree lan lan nga def dëkk bi moo metti wala waaw euh, dañu xale yi dañu doyluwul wala dañuy bëgg-bëgg yi moo tolloo wala mais nga nekk tamit fii fii dañ fi toog mais peut-être tamit am na ñoo xam ne ñoo xam ne tamit ah, seen dëkkuwaay mooy loolu yàlla xam doy na bu ñu ndekkee amaana duñu duñu am dignité am ñoo moo tax ñu naan jigéen dafa hmm. jigéen lu mu metti metti na nga téye sa dignité amee waaw parce que kenn xamul suba tey ëllëg ma du añ du reer waaye lu mat a séddal donc lépp lu ñuy def rek nañ ko def si yoon bu jub hmm. jigéen ah da war a daan doole nekkul hmm. da nga ñàkk rek waaw wala non dama rafet donc sama rafetaay laay jër pour ah am si lu ma bëgg am si benn dix mille bi wala benn un million bi déedéet amaana tey boo jaayee lingom bii en ah, dans un mois mu jural la million te amaana doo si jaay sa bopp mm. doo si def naka sudul noonu donc nañ defaraat taxawaay ñu xam ne ñun ay jigéen lañ jigéen moom moom ah jigéen moo jur ku baax mm. jigéen moo yor famille mm. donc daal ah nañu xoolaat jikko yu ñaaw yi ñu mën ko ah, euh, dagguma la lu ma si lu ma lu ma bëggoon laaj tamit damay gis ni jigéen ñi surtout jigéen ñi jigéen ñi bon génération bi de vingt ans à quinze ou seize dañu wow bët ragaluñ quoi en fait ragaluñ comme par rapport bu njëkk bu njëkk njàmbe jigéen bu la daan romb bu daan romb comme mu toog nii comme temps xale quoi nga toog nii si bunt kër dinaa ataaya ak say copain jigéen bu rombee bu daan romb jigéen bu am kersa bu tëlee gars yi bët bu ñu viré si moom da ngay buy dox day tremblé wu da ngay sentir xool day day day jaxasoo buy dox ah ah Badji fi ma wax li may wax dama koy ko dafa dafa dafa dama ko dund dama ko dund autant temps xale li ma temps boobu maa ngi woon maa ngi woon Louga su sama dëkk maam mais noonu ko bu ñu doon toog si bunt kër te ñun xale la ñu woon de mais naam parce que jigéen bi bu tëlee rek buñ ko nee jàkk suñu bët dañuy gis day lox di lox di lox léegi jigéen ñi loolu amatul amatul njàmbe loolu amatul xam nga ñun ma am tey temps booy ah. suñ bu suñ bëggaan a maam xam jigéen dañuy bàyyi ba ngay sago ñu lay yónd da nga ko doon def yow dañ ko doon def man dama doon yónd ci duus yi mm-hmm. parce que moo tax man ni ma mel nii ñi may seetaan xam nañ ko mm-hmm. parce que jàmm dal la yow waaw yàgg naa sàcc ay bu xale jigéen. Mm-hmm. di ko yóbbu. di ko jël di ko sol di ci bànneexu. parce que man nii laa mel te loolu temps booy la. Ousseyn njàmbe njàmbe njàmbe. njàmbe xam naa loolu si met gars yi nañ commentaire dagal ma boole la si <laughs> bool yow moom sama sama la yow moom gars yi li nga war a wax moom man xam naa mu ngi nii jàkkaarloo maa ngi koy seen nii commentaire yi nii maa ngi koy lire. mais dañ ma siy boole. xool ma njaabe man kilifa laa njaabe li ñuy wax ni a lii lii dafa garaaw xam nga la ma tax bëgguma ree ah? xam nga ne dëgg dafa am solo waaw mais man da def ma en tant que man sama mm-hmm. enfance mm-hmm. noonu nga dundee sa enfance Pikine ma nekkee Pikine ah. dama noon sàcc si bu xale jigéen ñi ah. di ko dund ñu suñu ko def amoon benn kon boo xamante ni fa lañ xale jigéen di sangoo benn genre robinet mm-hmm. ci ginnaaw am benn zingo man yóolu naa fa ba ànd ak zingo bi dans le suuf ñu yuux ma sàccee ma daw ndax la ni mu mel maam. kon yow boo gisoon jabaru jàmbur doo ko moom doo. non ñooñu xam nga taamu ñëpp ay xaay lañu woon. Ah. kenn xamul kenn am fa woon ca kër. nañu wax dëgg mais man yóndu groupe neexoon yóndu di xam jigéen xool jigéen nekk nii la ko yàlla bindee moo tax feebul gii ma feebul. lu naturel la ci man. léegi ma bëggoon laaj mooy. Mhm. jigéen bi nga xamante dafa def business beauté di di jaay euh, yaramam ak taaram ak yooyu. Mhm. yan conséquence la ko mën a andil. non pour man. est que jàpp nga am na mucc. si am na mucc. lu tax ma am mucc. fii nit jaay na fi maanaam def na business boobu yóbbu yóbbu yaayam màkka ni waxante dëgg. am xam ni da koy def. ah mais fii ñëpp xam nañ maam xale bu jigéen bu yeewu jël saagam dem. dëkk maanaam maam bi dëkk boo xamante ne maam amul loxoom jotu ginnaaw jël saagam dem chaque fenn mu fay néeg bi. jox joxe ration xam ne sama doom ji liggéeyul ah ñëpp xam nañ day jaay yàpp mais da ngay dëgg sax nga teg si. parce que at mi mu tëddee noonu fu ne ku ne ku ne da ngay di gën sa bopp mooy xale jigéen seen business bi ñuy def maanaam ci ànd ak ñoom di leen ci encouragé ba dëkk bi amul xëy Ouzin dëkk bi amul xëy. mais jàmbi li ma bëggoon wax <laughs> li ma bëgg a laaj mooy par exemple d'accord mais yow mi nga xamante ni yow yaay dem jigéen di ñëw si yow. Mm. ngay nga jàpp ne da nga benn dix ni ko jëlal nga envoyé ko benn dix mille ni ko jëlal taxi boo ñëwee wala arrivé payé mu dikkee la genre quinze mille nga tëddee ko yow mi koy def est ce que de temps en temps di nga toog wéet di xalaat par exemple sa rakk bu jigéen wala di xalaat sa sa sa sa mag. mais non yow da ngaa yor moto yow da ngaa dóor yow moom sawar nga sawar boo xamante ni fu la nekk fi Dakar mën ngaa dem fekk ko fu ñu ko coppet yóbbu ko hmm. xam am na ñoo xamante ne maam bu ngoon dañuy bëgg a jënd sandwich bu six cent xale hmm. yow xiif na mais six cent dañ ciy faju noo ci fajo xale bu baax léegi xale bu baax la ko jënd sandwich six cent yóbbu ko sa parce que maanaam xale yii xiif dëkk moo amul liggéey. léegi non mais Ndiame ba léegi tontu woo ma de. Hmm. yow d'accord nga si business bi ñuy def. mais yow li ma la li ma lay laaj yow ndax yow. waaw ndax yow. boo amoon rak. wala cousine. waaw bu jigéen. bu tooloo ñoom âge vingt ans jëm diggante boobu. est-ce que bëgg nga ñeeg beneen góor di ko def loolu. xam nga lépp rek maam dafa aajo maam tey ci kii nan la juddoo ak famille bi mu bokk. Hmm. parce que maam tey nit fekkee yow. da ngaa judd famille boo xamante dañ la yar ci diine ak maam ci lislaam mhm. rek maam parce que fu nit ñi réseaux sociaux yi ñoo yar xale yi mhm. xale bu ndaw ngay gis mhm. ak lan xale bu ndaw ngay gis waaw mun na ci tiktok bi am liberté boo xamante ni maam tey mag yi sax amuñu ko woon bu njëkk maam parfois benn xale buy live ba quatre heures du tey live tiktok ay quatre heures du matin cinq réseaux mag yaa am réseaux sociaux koo dugg nag maam da ngay nekk ponk li maam mu jaaga c'est honnête et sincère. mais est-ce que est-ce que ñëpp la tamit. ñëpp la il faut pas généraliser. yow parce que yow Syrie yaa nga la wax sànq dafa dafa solo. Mm-hmm. léegi sànq dégg ñu dégg ñu bu baax a baax. Mm-hmm. léegi mën nga ko reprendre. dama la laaj ne la. Mm-hmm. yow boo amoon rakk bu jigéen yow Ndiambe boo amoon rakk bu jigéen. est-ce que nga ñu jàpp ko comme yow ni ngay jàppee jigéen ñi. non dama ne la lépp loo gis maam dafa basé maam ci les liens parentaux. mooy nit koo gis. Mm-hmm. am na maanaam famille. Mm-hmm. mais am na ñoom tamit famille ñoom daw seen responsabilité si si seen ay doom. Mm-hmm. day am xale bu ndaw maam nga jox ko téléphone jox ko wifi mu ne di connecté bu heure bu ko ah, neex. surtout léegi gars wifi kay. waaw ne si TikTok bi am ay am am ay maanaam idole yoo xamante ni maam tey duñu sax ay sénégalais. ay idole Rihanna. ay nit Nicki Minaj day suivre kooku noonu mënut a maam def loolu maam di exposé yaramam. nañu te dëgg te tamit maanaam euh, yow yaa ko poussé maam ci loolu. yaa ko donc la pour yow c'est parental quoi. non c'est maam maam. yi. parce que maam parents yi ñoo amatul temps. bu yàgg seen doom te tamit wax nañu dëgg parent bu ne maa yaa ngi xëy suuf dang dang noo dundalee xale yi. waaw dafa métti dëkk bi dëkk bi les temps sont les temps sont durs quoi. fataaya complet bu 600 dañ si am fataaya. ñaari fataaya. ñaari fataaya nga yow. bi mu lekk bi nga. non non réew maa ngi toj. mais jàmm képp si jàmm jàpp ne réew maa ngi toj. Mhm. d' accord dinañ ñëw ci solution ci fin fin émission bi mais bon gis euh, lu ma la bëggoon a laaj parce que dama koy dama koy laaj li ma la may laaj est ce que jigéen góor ñi waruñu di jàppe jigéen ñi comme seeni i sœur que bañ leen a topp rek ci seen i bëgg-bëgg ndax yéen seen i bëgg-bëgg yéen ay iPhone di leen jaral lu ne. la gis nga jigéen ak bëgg série yi fenn ci série yi ak toog ci internet yi. Eh, oh. waaye man ma toog ah dama koy leeral man du ma toog journée. du ma toog deux journée te jigéen message ma Ousin dañ ma jox sa numéro man la sa waa lan nga bëggoon Ouzin man dama am passion def def présentation loolu daf ma neex. feeñ série daf ma neex ma la waat d' accord ndax mos nga def formation nga ne ma noonu en tout cas suñu waa kër ah am don sama nijaay nee damaa am don léegi man bu dee man dama nekk koo xamante ne dama am temps boobu noonu damay am sa temps quoi am sa temps bi mooy damay yóbbu si yenn affaire si yenn monde yi. Mhm. xam nga ñu may seetaan xam nañ man yooyu ndoxuma ci ah du ma njàmbe ah. ma leeral ko ah. non déjà am na ci beneen droit yi rek bàcc. déjà genre ñaambi déjà genre ñaambi yi ñooy yàq xale yu jigéen yu bëri. réew mi kay réew mi déjà éducation sànq doo dama fay ñëwaat. parce que gis nga euh, sa yaay ak sa papa dinañ la yar fi ñu la war a yaree. Mhm. nga génn ñu détourner sa mhm, doom. Mhm. ah def si beneen yarin. donc parents yi. faute bi nekkul ñoom. parce que da nga yar sa doom foo ko war a yaree nga génn. ah mu am yeneen àndandoo yeneen fréquentation ñu changer jikkoom. yow tey bu doon sa rakk bu jigéen wala wala sa mag bu jigéen ah sa beneen jantalmeen fee di ko def la nga la ngay def ñeneen xale jigéen du la neex ku ñu loolu su fee gis ku ku ku ji salaat maam mm-hmm. maam maam mais yow si éducation bi nga ko tegal ay non édu non mënu ko basé am na ñoo xamante ne peut si éducation bi am na ñoo xam ne nekku si éducation parce que mën nañ la yar nga génn mbedd bi changer sop soppi la. mais mais ni nga dee ci mbedd bi ñun ci kër lañ jóge comme yow de. waaw voilà donc moo tax ma non mais attends xam nga mbedd bi. Hmm. sa jikko. jikkooy ñaam sa sa jikko sama jikko bu ñu bokkoo donc cest di dire jikko yi mhm. Mhm. différent jikko mhm. donc doo xam bu baax beeg bu bon bi donc lu ñuy ñaan yàlla rek yàlla xiñu si ah lu baax surtout ñun jigéen ñi donc mais mais mais mais internet bi ngeen di sëgg guddeeg bëccëg di ci wër non Ouzin Ouzin li yéen ñuy rëbb ay dëmm non Ouzin ñoo ñuy rëbb internet bi taxul la bon taxul la jaay sa bopp fës si internet am na ñoo xam ne ñu ngi fës si internet bi matin midi soir mais ak ñoo am fulla am na ñoo xam ne fësuñu si internet bi te ñu jaay seen bopp donc ça n'a rien à voir internet bi baax bu la si taxee dugg di nga baax bon tamit di nga bon. Mhm. xam nga fii jëlante PV yi tamit bari na de. ci internet bi kenn kenn loolu duñ ko wax njàmbe. waaw ah, waaw waaw xam fii nit mënul mënoo maam tey saxal pom. ba pare am ay banaana mun na ku saxat pom pom ngay am. pom daawoo maanaam dafa nooy dafa nooy. Mhm. te dëgg fa yàlla loolu sax mbir la. Mhm. pom ak banaana histoire la. donc moom li mu wax mooy. Mhm. waaw na nit ñi baax na ñi mais nañu wax dëgg ñi nga fii boo bëggee maam def carrière. Mhm. ci wàllum aar da koy jàngi. Mhm. par pare maam ñu certifié la. man en tant que man tey ñaambe artiste comédien nekkoon naa léegi faal maam Pikine. ar ko def atelier sonn fa lool. tey maam loolu moo ngi jàppale ñu mën a am maam talent taw di wax. moo nekk ne man dama bëgg def télé. Ah, nga pàccal sa dënn man du la saf ne booy sama gars man man dama koy en tant que man au dama ci ne. mais Leyti Fall de jàngalul la li ngay li ngay dundee nii. daa mel non Leyti Fall wax maam en tant que carrière man je parle en tant que carrière. Uh-huh. en tant que maam artiste. d' accord waaw loolu laay waxee. Uh-huh. d' accord donc tey li ma mën a waxee mooy tey nit ki loo bëgg da koy da nga koy maam dañ si nangu maam tàggat da nga da nga si da nga si a sonn. à la booy yi bëgg lu yomb. parce que booy yi fi léegi. Euh, non Ouzin moom bu ne booy da nga bëgg lu yomb dafay généraliser. Hmm. non bul généraliser bëgg lu yomb. xale jigéen ñi bëgg lu yomb. non boo ne boo ne. non non généraliser bi laay parce que amoo salaire ba tey seen génération bi nekk indépendante. amoo salaire dépendre ci benn góor ñu ngi daan seen doole. daan sa ban. fii ka moo fi toog xam ba xam jigéen moo fi sonal damay jaay limon ba ba limon fay ma doo ko def. waaw déjà Ouzin man benn si man man suis indépendante basé wu ma si benn góor lépp lu ma am maa ko ñafel sama bopp. looy liggéey donc am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. looy liggéey looy liggéey. déjà li déjà yor naa sama boutique en ligne créé sama marque parfum déjà maa ngi jaay jaay samay savon donc sànq ñu ngi koy affaire. dégg nga dégg nga voilà lépp ay taale yoo xam ne. mais ay saaf ay xolal. dégg nga dégg lu góor mën lu ne jigéen mën na ko. dégg nga dégg nga xam nga lii dafa yomb. ay xam nga classique je pense que mooy mooy sa boutique bi nu mu tudd dama ci tuuti pip voilà chez Gis classé xam nga xam nga xam nga am lii vente en ligne dafa yomb sa vente en ligne voilà soo rek laa moo tax man la fii am na jigéen yoo xam ne ñuy gëm seen bopp ba tey wanteeruñu seen bopp d'accord pasar pasaruñu seen bopp d'accord léegi dañuy ñëw voilà dañuy ñëw comme fii ko li yomb na euh, de vente en ligne ci euh, may leen moo wax ah donc dañuy fàttali dama leen fàttali yéen toujours euh, ci seen émission jamono ku ko fekk war caa def lu baax Euh, ñaama de defu ci lu baax jamono ji mu fekkee moom. sama xarit bi defu ci lu baax. non daama eh il n'est jamais pour bien faire. dara dara déedéet bu dee def lu baax dara du weesu. dama ne lan laa def xaaral bu dee def lu baax dara du weesu. mais Ousseyn lan weesu weesuwul njàmbe nga dëpp. nekk nit ah man yoon ma nekk ma amul dara lu ci ñaaw. njàmbe yaa doo soor si ëllëg boo waree am jabar. war am ay doom yow boo waroon am benn diis parce que maa doo am benn njàmbe. mu fi ànd lépp liggéenti la dama koy liggéenti. doom ngay lijjanti. man fii amul lu ñu dul lijjanti. mbay Messi mi dafa avancé. yow taa rek nga de. waaye man ne naa def lu raw damay pikiru léegi. <laughs> gën a. léegi jàpp solution yi la ñuy ñëw. lan pour mhm. pour un peu émission ñu ngi may signalé ne li test bi bariwul. Mhm. mu gën a yaatu ni mais ñun ñoo tardé wala man maa tardé. la nga jàpp ni moom mooy solution wu problème yi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy dund rawatina xale yu jigéen ñi euh, suñu moroom rakk yi business booti bi bi ñuy def noonu lan mooy solution bi. waaw xam nga man gisuma ne affaire bi am na solution. Mhm. parce que xam nga ni ku ne maam tamit àdduna choix la ku opté maam def sa choix dama ci ànd ak yow bu mun ci doon man nekk nekkuma fi kenn di conseil kenn mhm. war naa defal nii wala defal naa kom am envie maanaam dugg ci business beauté bi dugg ci business beauté bi lépp loo ci am nga assumé ko comme conséquence. Mhm. man ñàmb ci li ma ne. maa ngi boo ci amee boo ci amee biir tamit nga yàq. mais biir du dara biir doom kese la. doom doom mm, kese la mais bu nekk war na mën a ñaan bi am doom am ko si yoon bu mais tamit xam na yàlla mooy bind destin dafa man mi mën na sama dama nar am ay doom yu bari te xam naa sama doom waaw te baa fa kaala macha allah waaw bu doon mën nañoo ne fu ne mais dama koy assumer man du ma daw sama responsabilité mm-hmm. donc xam man la si ñëpp maanaam ne mm-hmm. lu waay bëgg ne ci mm-hmm. man ñaambe man sama feebar gi ma feebar dama koo assumer man boo defoon ans léegi Ousin yow boo defoon ans yow fu mu mm, toll nii. <laughs> waxoon nañ ma da ngaa ko nag balaa émission balaa émission di nga ko tax. lii daal la maam day wax maam tey mu mënoon na la ma nga ko gisee góor ñi dañuy jaay seen bopp de non dafa daggan yow gis naa góor a ngi gis góor xam armes bi da ni la lay def bëccëg da dem salle di entraîné nga ne góor yàlla baa ngi nii bàyyi fall baa ngi nii bu paree entraînement par exemple bëccëg gi matinal bi par exemple bu demee diggante cinq heures de cinq heures à à sept heures mu dem dawi dem géej dafa tànk yi daw bëccëg mu ñëw salle musculation à partir de 17 heures jëm ko fekk neloon na par 17 heures jëm ko mi ngi wër soit day sanc ba rafet dem si corniche bi mhm. di wër ay ay ay jigéen waaw góor ñi tam lu tax ñuy jaay seen bopp la liggéey la mais boo jaay sa bopp njàmbe waaw ba takk jabar baa ni gis naa góor bu jigéen may 7 millions tabax Fagal ndax lan mën a laal may ko 7 millions kontaan ci moom kooku bi ne baax la su ma daloon te du dara. 7 millions la ko may. 7 millions la ko may mais mais 7 millions la ma ko may liquide nii mënu ma xaalis bi femme bi bu ko mayee 7 millions. waaw femme bi bu ko fii fii nekkul maam ndigg fii fii waaye xam nga ku may 7 millions nga lekk ba suun na maa ne maam teel ci maam say wëju loolu laa gisee point tiré final. ci lu lew xam nga tamit salle de musculation salle de musculation yaa ngi toj. xale jigéen xale jigéen xale jigéen yaa ngi def membre. benn jour benn jour xam naa damay jox jiis rek micro bi xam nga naa dañuy entraîner xam nga benn jour benn jour damay jox damay jox damay jox dix ah dix micro bi mu dem salle musculation bi. bon pourquoi pas def fa benn genre reportage. xool góor yàlla yi foofu naka la ñuy dundee. mais dégg naa tamit ñoom si boppam parfois jigéen ñi ñoo leen di woo di leen provoqué ak ah, yooyu. parce que dafa am jigéen ñoo dañuy toog naan dama bëgg góor bu am muscle. bu dee xeet boobu la góor di woon. xam nga man man man bëxër en fait gis pour ñëw si solution yi par rapport ak thème bi bëggoon nañ gën a waxtaan mais bon euh, temps bi ñu joxoon moo mooy jeex ñu ngi may wax si gis amul benn solution mu euh, jox euh, ah Ouzin solution bi du lenn lu dul nañu yemale suñuy bëgg-bëgg ndax ku yemale say bëgg-bëgg amaana tey doo dugg si business boobu mm-hmm. donc jigéen lañu te jigéen tamit dafa war a xam boppam xam mooy kan donc nañu limité bëgg-bëgg yi rek mm-hmm. nañ limité bëgg-bëgg yi. <laughs> jërë ngeen léegi waajur yi waajur yi ñoom tamit euh, ban ban ban ban conseil nga leen jox donte. waajur yi tamit ah nañ yar seen doom tamit fu leen war a yare éducation de base de base dafa important. xaalis euh, xale kenn du ko surtout jigéen kenn du ko teel a jàngal xaalis parce que bu màggee rek day bëgg dërëm bi euh, donc te te waajur yi tamit ah bu ñu teg tamit yenn charge seen doom parce que. Euh, liggéeyoo nga war a mm. fay courant war a fay ah, ndox war a fay dund mm-hmm. tey mu leer na na jàppoo si dara donc loolu moo naan demal jaay sa bopp voilà donc am na parent yoo xam ne xam nañ ko sax mais dañuy tëgg bal bi mm. euh, donc mm. faute bi yëpp tamit genn wàll gi ñoom la parce que sa doom bul ko teg lu mu mënul mm-hmm. waaye jigéen ñi tamit am leen jom te liggéey bu leen xeeb dara de ah, góor lu mu mën jigéen ñi mën nañ trip te bu leen déglu genre yi nag ñoo yàq parce que dëkk ay prédateurs yu bëri yoo xamante ne ay pédophile voilà ak ay pédophile ah rafet da mool ah yow sa taar bi mën nga def li déedéet lu la sa lii mayul ak jom bi bu la ko leneen maye. Njambe looy daane ñu tëjoo ko bi waxtaane ko ñu ngi may wax ne ma émission bi jeex na Njambe waaw non yow da ngay job da ngay job mais danga bëgg femme waaw daal la ñu looy daanelee ñu waxtaane ko maanaam di wax ni xam nga nga c'était un plaisir xam nga mhm. bi mu plus daf maa ay waay fi caméraman bat ji daggal ma loolu nooyi boobu mooy lan ah. mm-hmm. mm-hmm. mais kontaan nga quand même. non kontaan naa xam nga bi donc xam naa ne moom nit ñi dinañ wax lu ne. mais ni ko nit ñi maam commenté ma dund la dund. Mm-hmm. j'essaie maam d'être moom à place. parce que je suis un complet. donc di nekkul ne man en tant que Ñaame laa dafa am ñu mel ni man. donc su ma dugg seen place. du ñu maam xam fa lañ war a jaar donc na ko na ko nit ñi ba bay jëlee duñ contexte négatif mais jëlee en tant que maam tey euh, ki nga xam ne dafa essayer de sensibiliser moom la. aywa yow li fi wax nii yëpp sensibilisation nga doon def. non du <laughs> sensibilisation. Ah. mais xam nga rek nit ki maam tey. d' accord nit ko bëggee maam yedd foog nga mën ko. d'accord d' accord. comment nag. donc di remercier na sama commune bi xam nga boo xam ne maam mooy woo ma sopp. woo ma sopp. waaw tabax. woo ma sopp dañ ko dañ ko war a seeti. waaw mooy G. G. fu mu fu mu nekkee moom si Ndakaaru. Ah. Mhm. Ah, kenn du moom. woo ma sob moom jox tiset bi. Mhm. ah tabaarakalla macha allah woo ma sob yàlla sa jàmm yàgg. d' accord wóor sama xale. wóor mhm. sama xale wóor Ousin wóor Gise. wóor ma Gise ñu waxtaanee ko. wóor ma maam la synappeuse <laughs> ah, la synappeuse la grande synappeuse. wóor ma maam de son vrai nom Kiné. waaw ak tuuti. utiliser ko laa wax. tuuti laa wax. a comme tuuti. <laughs> ak junior waaw waaw. loolu sama gars yi nga xam ne bi ma si WhatsApp bi. Mm. su na dugg ma si WhatsApp parce que xam nga rek demoon moom nekk ay suñu mbir mm, jom nga nekk. waaw jigéen bëgg ans mais ku jom nga nekk. loolu def naa ko loolu def naa naa looy tàggatoo. vive les ah, <laughs> déjà maa Euh, tàgg wax tamit sama xarit bu baax bi ñaami nga xamante ne ah moom daf ñoo contre daal moom ah saay-saay la di la wax Ouzin tamit jaajëf euh, di nuyu euh, di tàggu tamit suñu mbokku internetu Dakar Net mm-hmm. di leen wax saa su chaque weekend nii lañ koy defee mm-hmm. ak ay thèmes yu bees lépp lu xew société bi rek dañ koy waxtaanee fii pour yéen ngeen jële si njëriñ ah lépp lu baax ngeen jàpp ko loo xamante ne tamit baaxul tam ñu jëm ko jëm def ko ci poubelle bi voilà tey nag gis nga gis classe en chic moo ma habillé ah moi-même gis nga yu baax yi donc gaaw leen seet si ma. di leen wax nii lañ koy defee nag. émission bi de moom merci beaucoup du ma émission bi tamit table ngeen ko bëgg a loolu dama koy bañ. <laughs> waaw gis nga du tamit. xoolal baa cëm ma ngi lay wàccee di la. waaw gis nga baaji yow ba ngay wax sa sa woo ma sopp filmé wu la ñaame lu góor mën ah jigéen mën na ko voilà. <laughs> di nuyu tamit ah, sama copine bu baax bi ki ne di la wax oh, merci beaucoup. Mm-hmm. Ousin tamit jaajëf. Mm-hmm. di leen wax la prochaine. Mm-hmm. classique chic, hein oh, Voilà. C'est ça. Elle est habillée par classique mm. chic, classique mm. chic, n'est-ce pas Ndiamé est habillée par... Woma Sop. Woma Sop. waaw kooku bi. Euh, euh, non incha allah Woma Sop. nu mu tudd nu mu tudd gaan bi. Zé. Zé d'accord Zé solal bopp bii di ñëw. Zé Zé waa xaaral waaw. lu simple rek day positif. la simplicité c'est de l'art sax. alors ça a été un plaisir de vous servir seen émission jamono euh, moom la ñu nekkoon di waxtaan ak yéen alors li ñu ci jublu rek comme ni ko euh, Ndiame waxee dañ ci jublu pour jàngale donte fi xam yam xam tàmbalee na fa di dem. kii toog di wax nekkul moo xam ci xelam rek lay waxee yow mii mën nga ko ëppale xel fuuf di ko seetaan donc ngeen jàppee ko noonu rek fii suñu xel yam fa la ñuy waxee mais également li njàmme di wax am na ci réew mi lii ak gis di wax am na ci réew mi Euh, dañuy jël li nga xamante ni moo baax ñu daal di koy jël li nga xamante ni baaxul ñu daal di koy sànni ca poubelle ba xale yu jigéen ñi nag xoolaat leen seen bopp bu baax a baax waxuñu leen ko pour xas leen mais euh, vous êtes nos sœurs suñuy raq ngeen suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy jarbaat ngeen donc li ñu bëgg rek mooy ñun ñëpp ñu baax Sénégal jëm ci kanam ku nekk nga garde ñuy dignité lépp li nga xamante ni sa ñàkk sa doole sa xam-xam mayu la ko euh, bul ko laal waaye maa ngi bëggee bu baax a baax la grande synappeuse de son vrai nom xaaral ma tagg ko elle est toute bu suuxir kooka la mu ngi ne toog jàkkaarloo moom muy kan muy Kiné ah Kiné maa ngi lay bëggee bu baax a baax yow moom tu es assez disponible et très disponible ma quand même saa yu ñu la soxlaa soxlaa da ngay ñëw di ñu sinabal ñu koy estati suñuy fans yi di bëgg suñuy xarit yi di bëgg mais bëggee bu baax a baax ah, sama yaay booy ah, ah mois de mars bi ñu nekk nii yaayu seex yi xaw man sama yaay lu garaaw laa sama yaay dafa seex ñaari yoon da man seex laa ba pare am ay rakku seex loolu ah. caaxaan moo tax ma yaay booy loo dund doyul di nuyu sama ñaari seex yi sama ñaar rek yi xam ñu ngi turki ñoo bokk bokk ndey ak baay ñoom tamit seex la ñu ngi turki jazz ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Mara borom turki di nuyu Assane Seex sama seex man Assane gërëm bi bari na nag may bon c'est assez normal di leen béggee bu baax a baax nuyu sa yaay nga gaaw xam nga maman tamit bonne fête xam nga man di wax ni maman man moom euh, lépp loo gis rek jàppale maam la. dëgg la sama su mm-hmm. yàlla bëggee. dama mm-hmm. bàyyi ak sama yaay. d' accord d' accord nga dëggal jubal la waaw dëggal jubal la parce que sa yaay tamit bu lawee day gën. te bu bu bu. waaw ngeen sa solma solma. waaw woo ma sob woo ma sob nekk fan woo ma sob noonu ma ko bëgg a dóor woo ma sob euh, en face dibiteri Koromak woo ma sob Koromak Faye mi ngi nekk fii si HLM Grand Yoff dem leen foofu woo ma sob da nga koy woo rek mu solal la ba nga kontaan euh, foo génn ñu daal lay ràññee kooku mooy woo ma sob euh, frair waaw g g bëgg nañ bu baax a baax merci beaucoup ça a été un tuuti moo ko doon assisté coordination bi ben je sais pas c'est ça de Boukounta